am na lu mu réglé. L'interprétation du dialogue, c'est en fonction de la où on de son positionnement et de ses intérêts politiques et de son calcul politique. am na ñoo xam ni dialogue bi intéressé wu leen. dañu koy dénoncer. loolu ça leur permet aussi par rapport ak seen image. pour montrer que bokkuma ak ñii. wax naa ko barki démb ma ne leen. moi je suis très libéral ah. je suis très libéral parce que. ki nga xam ne am na. tu es né libéral. Mhm. droit dem dialoguer. on mhm. peut pas lui empêcher d'aller dialoguer mais il peut pas empêcher aussi nit ñi am une perception ou une lecture de sa participation au dialogue nest xam ne il a décidé de ne pas kenn mënu ko tere force diri loxoom ne ko di nga dialoguer par la force. Mhm. waaye tamit nit ñi am nañ droit am interprétation ñii dinañ interpréter que moom ñi dialoguewul ils sont dans le radicalisme pur et dur. man sama phrase yi ma jàppoon rek moom laa lay joxaat. affaire bi coalition. bennoo bëgg bokk la. coalition bennoo bëgg a bokk et puis qui a intérêt à dialoguer. su fekkee ni Macky si wàllu adversité politique il utilise même les armes non conventionnelles. tous ceux qui ont eu à lui faire face ont payé de leur liberté. si Khalifa Sall amuloon ambition reste tranquille le maire de Dakar. qui collabore derrière Tanor Dieng il n'aurait pas tous ces déboires. Khalifa Sall il a fait combien Sall ci kaso bi. Mm-hmm. je pense deux ans. ah je pense deux ans. Euh, ñaata maire ñoo nekkoon Sénégal ci jamono boobu. cinq cent cinquante collectivités territoriales. waaw oui. li ñuy toppee Khalifa Sall maire fi nekkoon yëpp noonu lañ doon def suñu administration noonu la mel. ah. mais rapport IG bi ñu toppee Khalifa Sall est-ce que rapport bi dafa recommander parce am na ay recommandations yoo xam day wax nañ def poursuite judiciaire am na recommandation yoo xam ni c' est des recommandations administratives maanaam nañu defaraat wala nañu ñoŋal wala nañu xool mbir mi ni nan lañ koy defaree. Mhm. mais Khalifa amul woon recommandation judiciaire. terewul le mbol de judiciaire a été activé ñu ndodd ko ci Khalifa Sall c' est vrai ou c' est pas vrai Bamba. est ce que c' est vrai ou c' pas vrai que Karim Wade yoroon na ay ministère ñu tuddee ministère du euh, de la terre du ciel extraordinaire Bamba. ma bëgg. Euh, allez voilà li ñu des jeex waxtu bi jeex na de. <laughs> vingt cinq dignitaires du régime libéral. Mm. lañu toppee woon CREI oui ou non. bien Omar Sarr topp ñu ko CREI. Mm-hmm. est-ce que àtte nañ ko. fan la nekk tey. mi ngi ci kaw ministre ministre lan des mines wala Euh, Ousmane Ngom jële wuñ ko fi convoqué ko fi ah, jël avion militaire dem jëli ko def si essence Sénégal fekk ko ci hôtel ba dajji hôtel bi indi ko anamu defal ko interdiction de sortie du territoire bi muy génn Macky Sall ko njëkk a génnee du territoire dëgg la bi ñu ko indee principe bu justice ak transparence ku ñu dénk dañ la war a laaj mhm. càmbar la mhm. am nañ cour des comptes am nañ IG am nañ yeneen mhm. mais bi ñu fi indee CREI CREI dañ koo créé woon juste rek pour kereyal Karim Wade c' était tout amul leneen l' objectif a été atteint. très bien 2019 Karim ne Karim bu nekkoon candidat baaxul ci Macky Sall. 2019 mais nii nii 2024 Sonko bu nekkul candidat baaxul ci ci ci Macky Sall c' est aussi simple théorie boobu la amul leneen. Mm-hmm. et tey en force de créer le vide autour de soi tu vas te créer un monstre politique qui va être là. Mmh. article parce que. bu article L vingt neuf waxee ni bu ñu la daanee yow sa éligibilité dindil nañ la ko. Hmm. article trente ñëw delloo ko yemale ko ci juróomi at ma waxuma sax loolu. Hmm. mais une cour prononcé wul. Hmm. ni Karim Wade a perdu ses droits civils et politiques. demal xool l'arrêt de la de la CREI bi ñu koy àtte. comme cour bi waxu ko. Karim n'a pas perdu ses droits civils et politiques moo taxoon mu dem inscrire mieux encore. c'est des fonctionnaires du ministère de l'intérieur ñoom ñoo def conférence de presse ne duñ ko jox carte électeur ci lu dul yoon ça veut dire justice moo ko war a prononcé mooy déchéance justice moo koy wax xaarabul d'accord may ma mhm. yamuñu si mais encore fi ñu defoon ci suñu code électoral tout sénégalais peut être candidat mm. ñu dem jël beneen baat toftal ko ci laaj ma ban baat électeur ñu bind tout sénégalais électeur fekk xaj nañ ko carte électeur am yokk ci baatu électeur mu bañ a jàll c'est ça la vérité des faits amul leneen maintenant euh, bu fekkee da ngaa jàpp ni tër ko jéng ko desewu la lu dul nga ñaat rendi mais kooku il faut mu dialoguer Khalifa su dialoguewul du am Karim bu dialoguewul du jàll parce que seen destin politique mu ngi dépendre ci calcul politique bu Macky Sall maintenant dialogue la wala médiation non li ma la wax seen bi dil la dialogue la médiation ça dépend xam nga ku nekk compromission la voilà waxtaan suuf la Euh, lan xam nga laay dafa dégg tubaab. Mhm. moo tax ma bëgg a waxtaan ak moom. waaw moo bëgg a gaaw dem ci. waaw parce que léegi mais eh, laay laay zéro na zéro zéro waat su ma neexee jël basam. <laughs> bu la neexee nga tuddee ko dil. mais waxagul ci affaire bu la neexee nga tuddee ko baar yego. Ah. bu la neexee nga tuddee ko compromis compromission bi may tàmbali laa ne la. Mm. dialogue bi ku mm. si nekk yow. ci mm-hmm. sa gis-gis ak ci la arrangé. Mm-hmm. nga koy tuddee. ñi mu ñi nga xam ne am nañu dialogue dañ ko gisee dil mais nañu respecté choix ñi nga xamante ni ñoom ca dialogue ba. Mm. ñoom bu leen nee ñu tuddee ko diisoo. mais man l'un dans l'autre dama ne la bennoo bëgg a bokk xamal lan mooy damier bi. ay ndoxtu la da ngay dox ma i dox xamal la ma ki di dox su ngeen bëggee bokk da ngeen may bàyyi ma bokk loolu tax ma tuddee ko coalition bennoo bëgg a bokk. Mm. maintenant dafa am historiquement il faut tamit euh, ma wax suma xalaat. waaw euh, tey mënoo jël PDS dindi ko ci histoire politique Sénégal mënul nekk mënul bi Sénégal amulee mbañ gàcce xam nga mbañ gàcce kaa ñu voté mbañ gàcce amu fi woon Ablaye Wade moo xeex mu am fi vingt six ans d' opposition moom ak ay Amath Dansokho moom ak ay Bathily des gens se sont battus pour ces acquis démocratiques lii dëgg tey tey vérité maanaam waruñu xañ nit mu bokk ci élection pour des calculs politiques ñu utiliser le système judiciaire loolu ñu defoon ci Karim Wade def ko ci Khalifa Sall looloo tax mbiru Ousmane Sonko ñu ko ciy njort looloo tax xel xel xel ya teey ca looloo am foo seen lu ñuul daw la vérité mooy man je pour une démocratie participative mhm. une démocratie inclusive où on permet aux citoyens d'avoir la liberté de choisir mhm. c'est-à-dire mu nekk une élection mais Macky dafay manœuvre politique xam la may manœuvre politique maanaam euh, bu jàkkaarloo kenn ki du kii mais léegi nu muy créer yeneen candidat ñu fël mhm. électorat opposition bi dispersé wu moom solution pour mu mën a xool nu muy jàlle premier tour Macky ci ay manœuvre manœuvre xam mooy lan à un moment ci game bi Karim ak Khalifa arrangé wuñ ko ci game bi. d'accord tey ci game bi. Macky Khalifa dugg bokk Karim bokk dina ko arrangé parce que dina xaw a wàññi doole. Mhm. son Sonko opposition bi nga xam moom incarné. maintenant sur le plan politique. Wow. le vide que Macky avait créé moo créé Ousmane Sonko c'est-à-dire. Euh, la nature a horreur du vide y' a pas Khalifa Karim y' un répondant Ousmane Sonko ñëw tëll fële taxaw. ñëw indi benn discours am mais et ñu ubbil ko benn boulevard bu mag makki bi muy signé décret di dindi Ousmane Sonko inspection impôt domaine tu as suivi Ousmane Sonko en 2017 plus fort reste la duggee assemblée nationale bii nii nekkul ci liste de mais député bu fa yëkkati loxo naan naa ngi voté c'est clair alors am na ci wàll donc ça veut dire la politique elle est dynamique maintenant la vérité on ne peut pas dire que tey la fi injustice doog a am mm-hmm. s'il y des gens qui ont subi des injustices mm-hmm. moom nga doon tudd tëj nañ ko onze ci kaso bi onze mois. kii Serigne Abo Thiam bi nekk député le plus jeune député à l'Assemblée nationale il a fait onze mois de prison d'autres ont fait Bamba Ba euh, Victor ak ñeneen ak ñeneen. d'accord Cheikh Omar. donc tey Karim Wade a a subi pendant trois ans grand milliards la fi Mimi Touré toogoon di ko six mille. dem nañ fi di ko wàññi di ko yokk et puis nañu wax dëgg Karim musul changer posture nee na nañ ko ubbilaat procès bi maintenant est-ce que matériellement xañ na ah. lii dëgg nag vrai dialogue munoo dialogue te dialogue waa Ousmane Sonko c'est que dëgg moo neex yàlla munoo dialogue nga ne da ngay dialogue opposition da ngay dialogue national hmm. dialogue national une partie de la population national am na ko mu jox bopp boole woo ko ci dialogue bi donc nekkatul dialogue mais inclusion la merci jëlal ndox ak mouchoir waaw non wax naa sëy na pour mu xool la kii parce que <laughs> Euh, allez-y y a dans tous les cas y a deux oh, points et puis on termine ak yow y a deux principaux y a deux principaux points de désaccord ci hmm. dialogue bi te c'est des points yoo xam ne jàpp naa ni war nañu si mën a trouver ay hmm. accord parce que c'est des points essentiels hmm, bi si njëkk mooy la personnalité devant organiser les élections mhm. je pense que loolu c'est un point très important mhm. te war nañu trouver accord donc comme le président Macky Sall moo trancher au bout du compte je pense qu'il doit trancher en faveur véritablement de la masse de la forte masse qui demande depuis autant d'années te ba Abdoulaye Wade defoon ministre chargé des élections war na ci mën a tàbbi. Mhm. deuxième point de désaccord bi nga xam ne am na solo mooy chef de parti président de la république assise nationale yi waxoon nañ ci commission nationale de réforme des institutions bi nga xam président Macky Sall moo ko institué. Mhm. wax na ci itam je pense que war nañ ma a tàbbi ci loolu parce que dina may président mu am benn dëgërlaay boo xam ne on ne sentira plus benn clanisme véritablement ou soupçonné en tout cas mhm. de verser dans du clanisme si euh, li nga xam ne ñoom la ñi mu bokkal la. Mm-hmm. beneen mbir bi moo di man je dis toujours que Khalifa euh, effectivement il était obligé te obligation bi mu am tamit ça ne veut pas dire qu'il a posé un acte de traîtrise envers l'opposition quoi qu'on qu'on le veuille ou non parce que Khalifa Sall jàpp nañu ni euh, euh, bu weesoo bi soixante-dix ans day dugg mënatu bokk te constitution bi fu mu yemale mooy pour nekk candidat il faut il faut il faut soixante-dix ans mm-hmm. au-delà tu ne peux oh, pas l'être donc je pense que aujourd'hui

que il est assez bien connu bëgg naa mu dem. Karim Wade aussi en réalité dafa war a mën a bokk ci jongante yi. il nous faut nécessairement. plusieurs offres politiques. plusieurs pour une pluralité de choix. jëm ci élection présidentielle bi parce que dafay gën a taaral li nga xamoo di démocratie Sénégal maintenant kan mooy bokk ak kan moo dul bokk pour le moment aujourd'hui on ne peut pas dire que Ousmane du bokk mm-hmm. parce que ba tey nii jonn tey jeudi bii li ñu ko daanagum ba léegi ba jamono ba tey jii il est encore éligible mm. léegi lan moo di xew suba on ne le sait pas encore mais il ne faut jamais exclure des retrouvailles entre taxawu le PUR et le PASTEF mm-hmm. xaw ma ndax dégg nga mu baax il ne faut pas exclure possibilité boobu mm. parce que en réalité euh, am na loo xam ne xëy na nit ñi dugguñu dans le fond. mais boo duggee dans le fond possibilité la parmi d' possibilités yi am. Mm-hmm. parce que nous sommes en matière politique. et par rapport à l' de la matière politique. Mm-hmm. il faut quand même que nga mën a poser ah comme comme probabilité rek. bi gën a suufee. fi mu gën a suufee ak fi muy gën a kawe. nga teg mm-hmm. probabilité yëpp. mais mais là parlant de probabilité en parlant à sept mois ou huit mois.